alors Ndiogou kontaan nañu ci ni nga gagné prix jaajëf alhamdulilah maa ngi bëggee waa Sénégal yëpp waaw. clip bi euh, mu génn ñëpp apprécier ko est-ce que xaaroon nga tamit. Euh, ah oui ah oui macha allah vraiment euh, modestie à part ren meilleur tube meilleur clip meilleur son ci domaine yëpp macha allah ci domaine yëpp vraiment Baye Karim la. waay. dafa nekk loo xam ne euh, beneen euh, Tijaan laay ñëpp moom laa la wax ren boo ren andil clip bu Michael Jackson Michael Jackson bu doon dundu tey def clip deux mille vingt et nga teg ko teg clip Baye Karim da koy gañe macha allah kon damay ñaan bu déwénee ñu bañ ne rek Ndiogou Afia chanteur religieux mais nañ ne rek chanteur tout court meilleur clip ragaluma ñu boole ko clip bu sax Michael Jackson. après ñu ñu xool incha allah 2022 je vous donne rendez-vous incha allah 2022. ku bëgg am am da ngay doylu tey nangoo liggéey ku bëgg a dund dund bu jeex da ngay bàyyi ki ñaan ku bëgg yàlla di la suturaal bàyyi yàq der ku bëgg yàlla teg la ca kaw da ngay bàyyi jëw noflaay nag moom amu fi baax sonn bon sonn baax sonn bon sonn baaxal nañ sa njëriñ Merci à vous.